Euh, ñu ñëw ak yéen ci euh, communication boo xamante ni du gudd euh, ci loo xam ne mu ngi jëmal élection bi ñu tuddee élection locale locale nag buñ ko waxee mooy gox goxaat yi yàlla def ci Sénégal fu ne am na ay gox gox bu ne kenn ku ci ne am na ñoo xam dañ leen a tànn na leen diw laa leen di jox am na ñoo xamante dañoo tànnal seen bopp ñii ñi ñun ñoo tànn diw mu ñëw posé wu candidat pour ñu ànd ak moom jàppale ko mu jël gox yi man nag yàlla boole ma ci ñooñu nga xam ne ñoo tànnal seen bopp ñu jiite euh, GIE bu mag wala mouvement bu mag ñu tuddee dekkal sa gox dekkal sa gox nag mu boole ay jigéen ku góor Euh, ñu ngi juge jiite beneen association association boo xam ne Al I'lam la waaye dekkal sa gox moom moo jug ne dafa bugg a jug pour jàppale nee na ñu dañoo jug pour jàppale ki nga xamante ne mooy kii bu ñu sëriñ Mbuub wala buñ ne ànd defar Kawlax sa xel du xalaat kenn ku dul sëriñ Mbuub ci moom lañu fas yéene àndal ci biir loolu nag dama wax ne ànd nawle la wax léegoo li nga gis nit ñi di politique yoo xamante ne daanaka du politique par exemple ñu ne diw tariqa bi la bokk la tariqa ba la bokk su ko defee yooyu yëpp du du li nga xam ne moom mooy am importance la am importance mooy Kawlax yàgg na ni mu mel ku ne jox nañ ko ko Kaolack di suux rek di suux te damay wax ne waaye Kaolack bi mooy dernier sens sëriñ bu téye ko nga xam ne bu fekkente ne jël na maire bi Kaolack danañ am chance bu ko jëlul nag Kaolack fi lay jaxe ñàkk chance ba abatan parce que lu tax ma wax loolu Kaolack dëkku daara la Kaolack dëkku daara la dëkku xam-xam dëkku jànguwaay la te doomu daara rek moo ko waxuma ne moom rek moo ko mën a téye waaye bokk na si ñu koy téye mu mën a dem doomu daara nag bu dëgg dëggu dëkk boo xamante ne moom El Hadj Abdoulaye Niass la nekk maam Abdoul kan sëriñ Serigne Serigne Bassirou mu wàllu yu mag yu Mawlana Cheikh Ibrahim kon ñooñu dëkk boobu damay wax ne kon ki koy tii dafay nekk doomu daara bu dëggu kon na ñun doomu daara yi buñ ne doomu daara nag nekkul ku jàng alxuraan kese mooy koo xamante ne bëgg lu baax. mooy koo xam ne am na yar bu baax mooy koo xamante na xam na lan mooy mbaax waaye nag am na ñoo xamante ne yàlla daf leen dimbalewut bañ ñu mën a xàmme lu ñu xàmme mooy kiy joxe xaalis te ki lay jox loolu mu ngi lay jaamloo mu ngi lay ñàkkloo mu ngi dindi sa kersa mu ngi lay ñàkkloo ngor xaalis baax na xaalis baax na parce que boo defal lépp waaye nag nañ bàyyi bàyyiwante xel fan yi rek président Serigne Mboup bi mu demee ci xalifa Serigne Mountakha Mbacké nga xam ne am na liggéey bu mu ko santoon liggéey boobu di affaire université nga xam ne université bu ñu ko waxee pour képp kuy jàngkat rek si ngay bokk mu dem di présenté bi mu waxee ne dinaa liggéeyal Serigne Touba ci Kaolack ñu bëri jël loolu di koy politiser man yéen ñu ngi koy wax bu ñu leen nax am leen sëfale seen fayda am na droit te da man gis nga nit ki àndal ak koo xamante ne wan na la ngëm-ngëmam moom wane na la Serigne Touba mooy sëriñam mu gëm ko waaye ñi nga xamante ne dañuy ñëw di naxaati am na si koo xamante ne dañuy wax mais dina leer si kanam dañuy dem bañ ne kii boo ko tarbiya ku ñu waaj ba ñuy werante ku ko tarbiya ñuy rek mooy kon kooku ñamul taw feeñal fu mu bokk kon nit ku ne rek dañuy wax olof dañuy wax ne ragal péete dafay xañu wërsëg kon loolu du dara. buñ xool ne kii fii la bokkee fee la bokk nañ xool ki nga xamante ne mën na defar Kaolack tey ku mel ni sëriñ Mboup su fekkee CCBM jiite chambre de commerce kii cœur de ville te kenn ku ne gis na fi ne Kaolack cœur de ville muy doxee cœur de ville lu muy doxee kon bu boobaa nag nañ jël kooku nga xamante ne moom opérateur économique la bu mag sampu na ay ñu xam waaye ñeneen ñi xam ñu ngi laaj sampuñ fi dara. lu dul di jël xaalis xaalis ba ñuy jël di ko jox fu ñu koy jëlee ñun ñu ngi leen di laaj question boobu est-ce que lu ñu liggéey la ana ay fan lan ban euh, revenu ressource la am ban revenu ressource fu mu koy amee ba koy joxe kon ma ne Kaolack bu ñàkk fayda ñëpp nañu ànd ak sëriñ bu ànd nawle la wax nawle nag mooy nit ki ki nga nawloo nag koo nawloo doo ànd ak moom te ñooñu naxekat yooyu kenn waru leen nawloo yéen population bi yéen jigéen ñi yéen suñu jigéen ñi yéen suñu yaay yi ñii ekkati xaalis leen di jox bu ñu leen ko joxee jël leen jël leen waaye bu ngeen di voté bu leen leen voteel ngir kii jox na ma téeméer wala 1000 francs wala 2000 wala 100 francs yooyu bu leen ko nangu ñi def loolu duñ leen respecté mukk duñ leen respecté mukk képp kuy def loolu du respecté ñi muy àndal sëriñ nag daf ne dama ñëw pour def ànd nawle boo indee nga def ma def kii def kii def su ko defee ngeen boolante li ngeen am ngeen liggéey lii mooy liggéey gox nañ waat xel bu baax a baax a baax a baax a baax kii murid la kii tijaan la kii bu jëlee kii fee ko yóbbu sëriñ boobu naka lay gañee kawlax xanaa day yëkkati Kaolack yóbbu wala day yëkkati kër yóbbu fii lay toog ci meeri Kaolack bi liggéey Kaolack liggéey Kaolack kon ñu ngi wax ne mboolem jeune bu am fulla am fayda am personnalité xam sa bopp na nga fexe nga ànd ak ADK mooy ànd defar Kaolack te ànd nawle ci di liggéey ci santé suqali sàmm lii yëpp nga xam ne ñu ñëpp war nañ see bàyyi xel dañu jàppoo te yàlla tax dañu xam li ñuy bëgg bu ñu kenn nax bu leen kenn nax bu ñu kenn na ci lenn kuñ jox sa xaalis jël nga lekk parce que loolu lañ xam amuñ benn discours wax ne mën nañ ko tenir pour jox nit ñi pour lu luñ mën a jàpp lu dul jéem a euh, dox ci conscience nit ñi ci xaalis ci lu nekk ciy ñàkk fayda yi nga xam ne amul benn njëriñ kon ànd la lañ wax nit ki nag koo nawlawul dama ko waxoon naa ko ne koo nawlawul bul ànd ak moom te yii jëf yooyu ay jëfi ñaaw la koo xamante ne tey ay société gis nañ ko ci senegal ñëw Kaolack mënoon na toog def liggéey waaye damaa ñëw Kaolack pour liggéeyal Kaolack ba pare mu ne suñ même suñ ko gañe woon sax suñ ko gañe woon sax mu ne di ñu ooma dinaa ñëw liggéey te ku gis li xew ci Kaolack tey boo demee quartier abattoir ndàngaan faranta yooyu dara fi ne taayatul dimbale na leen waax waaxi ndàngaan bi xoolal lii buy def ci Kaolack léegi nag ñu bëgg a jël ñu ne nag léegi ñun dañuy jël affaire bi duñu jël kii kii ñuy dimbale nañ jël koo xamante ne bu ko jëlee daf koy yàq ñi nga xamante ne jëlaguñ réew euh, mairie jëlaguñ dara kenn xamul seen fonction mënuñ la wax ne lii moo seen fonction seen profession kenn xamul lan la fu terrain yaatoo ñu ne ñoom ñoo ko moom fu taxaw ñu ne ñoom ñoomu terrain ñoom ñoomu terrain ko nga ko soo ko dëkkee Kaolack suñ kër yëpp la ñuy nangu kon nañ leen ànd ak ki nga xam ne mooy bu gañee kaw lax dina wax ne Medina Baye Saara Saam Coofak euh, Kasnaak Ndorong ñëw leen ñu ànd ànd naw ñu liggéey su ko defee réew loolu koy liggéey réew mi dana set dina suqaleku ñun de waaye euh, dekkal sa gox bu abattoir Ndangaan incha allahu rabbi le 23 janvier dinañ xam ne dugal sëriñ bi ci mairie kawlax soobe soobee yàlla mu téye mairie bi liggéey Kaolack ndax Kaolack yaakaar naa damay wax ne bii mooy suñu dernière chance pour localité suñ dernière chance moom mu nekk nii pour ñu ngi ñaan maa ngi ñaan jeunes yi ndaw ñi maa ngi ñaan jigéen ñi fexe leen ngeen am seen fulla ak seen fayda ngeen ànd ak sëriñ Mboup ngeen voteel ko bu ko defee bu boobaa liñ bëgg ci Kaolack ñu mën ko def ñu ngi nuyu ñëpp. di ziare ñëpp di ñaare ñëpp jàmm bu boobaa nag yàlla defal ñu réew mi ànd nekk Kaolack nekk jàmm Kaolack développé Kaolack tey fu ñu toll ne Kaolack salte na fu ñu toll ne Kaolack doxul Kaolack nang Kaolack nangam bu boobaa yëpp ki ko mën a réglé mooy la solution muy Serigne Mboup muy solution Kaolack wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu si Sylla président euh, mouvement Dekkal sa gox jërë ngeen jëf